jaarale ko ci yoon lépp li nga xamante ne daf ko war warul xaar sax en fait man pour man ñoom li ñu woote waroo xaar sax ñu lay wax jaaral yoon. wala bul jaar yoon. yow yaa war a tege ci yoon parce que da nga ko woote wax ko gëmloo ko dugal ko ci bopp ñëpp ba 54 pour cent votel mmh. de la mmh. population. Mmh. yooyu noonu soo ko wootee. ñu ñëw seen slogan jub jubal jubbanti c'est très important ces mots xamuñu fi ñu ko taal mais bu mu nekk loo xamante ne ay termes kese la non dañ koy jëfe ba ñëpp teg ci seen bët duut ci seen baaraam na ñii kat seen slogan yi dañ ko jëfe mhm. mais bu fekkee yow da ngay ne da ngay jub jubal jubbante te saa boo tegee defee benn pas rek ñëpp am si ne moom ngunu ci suuf mhm. loolu c'est un problème te Sénégal ana balaa ma jeexal lekk dañuy tàmm loo xamante ne nii euh, dafay nekk loo xam ne baaxul ci réew mi da ngay gis nit ku nekkul ci yoon au lieu nga mën a taxaw carrément ne ko nekkoo ci yow dañ koy mëpp mëppal wax ko ci suuf bu ñu yugee ci kaw ànd ak ah. yow. bu ñu demee ci suuf ñu ngi ñu xam ne kii nekkul ci yoon. mais hmm. duñ ko yëkkati bés bu muy dem ba nekk à bout bu tuuroo rek lor ñëpp chaque jour dama lay répété foofu laay daanale. Hmm. damay bëgg ku far ci Sénégal te bañ a far ci ay nit. Hmm. lii yëpp lu ñu koy yóbbee mooy far si nit ki. nañu farak Sénégal bu boobaa les lois et dañ koy respecter automatiquement amul ñu jaarale la fa tey fi ñu toll ak ñi ñu jëlee ñoom pouvoir bi ak euh, euh, kii ba ñu am pourcentage ba ñu am ca élection yi mhm. tey waroon nañu rusa toog fii di wax naan dañuy def déclaration duñ ko def lois d'orientation nga yóbbu ko euh, orientation budgétaire nga yóbbu ko booy yóbbu orientation budgétaire ki nga xam ne moo jiite gouvernement bi il faut que xamal nit la fan la <laughs> pour man je ñi comprendre que les déclaration de politique générale peut-être euh, PM le muy wax mhm. mais déclaration de politique générale man comprendre yow chef du gouvernement mhm. ya ko doxal politique bi Sénégal di doxé ba léegi nag député ya nga xamante ne nii ñoom nga war a jàkkaarloo ñoo fa teewal Sénégal yépp hmm. parce que bu fa député amul woon Sénégal yëpp ñooy toog nga war leen wax léegi ña ñu tànn ñu nekk penc ndawu réew mi nga xam ne ñoom ñooy dem rendre compte population sénégalaise hmm. ñoom ñoo lay laaj ah foo jëmee réew mi nga ne man lañ ko jox kat pour ma jiite gouvernement bi lii ak lii laa ci def secteur bu ne nga wax fan ko jëmee loolu c'est très simple su ko defee bu boobaa waxtaan la rek mu mel ni jaayee dund waxtaan la négocier ba juboo ci kàddu hmm. loolu warul am problème

warul bëgg am ay jotee ak ak au oh, bu dekkul politiquement warul jotee ak ay député mm-hmm. parce que mën nañu defar comme mën ñu yàqu mm-hmm. parce que ñoo teewal Sénégal donc nañu xawlaat mbir yi bu baax PM mm-hmm. ah, na dem defee déclaration document boobu bu ko yóbboo pour man insensé même bu ko député yo voté woon sax ñu yóbbu document ba ñu voté ko amul njariñ parce que da ngay li nga xam ne xamoo fu ñu jëmee réew ah. suba bu ci dara amee am nga si responsabilité même suñ la waxul nga rendre compte président de la république moo war a rendre compte demee mm-hmm. mais yow mi ko àndale am nga ci responsabilité fii ñu toll nii je crois que ki war a jël responsabilité am balaa conseil constitutionnel di wax mooy c' est le président de la république bi nga xam ne c' est lui qui a nommé le premier ministre ne ko gérer moom mm-hmm. moom moo nar a toog woo ko tey man maa la fi teg lii ak lii lañ ko def demal nga defi lii ak lii mu teg ci yow tout à na solo Modou Koumba yaa ngi doon wax ndax duñu génn ci euh, déclaration de politique générale mm-hmm. ak arme parlementaire bi nga xamantene ni les députés am nañ ko mm-hmm. wara a sanctionner li di le gouvernement mm-hmm. euh, mu jaare ko nag ci euh, li ñuy woowee motion de censure nek na lo xamantene ni nii du lu bees ci réew mi ay motion de censure jaar nañ fi avec Abdoul Mbaye gis nañ ko Mame Madior Boye gis nañ ko ak yeneen ak yeneen est-ce que justement mën nga loolu raison la bo xamantene ni valable pour que le premier ministre

yow tay bo ñëwee ba fi tey que ñun ñëpp jàng nañ à l'école gis nañ gouvernement yi fi jaar gouverner c'est prévoir gouverner c'est prévoir c'est pas quelque chose boo xam ni da ngay ñëw rek jox leen mu réew mi rek après yow ci ay politique gu xale yi génn ci mbedd bi xeex na nax ignorant yi wala genre andi leen ba jot ci li nga jot après yow bëgg a toogaat di fental loi bi di leen ci non gis nga déclaration de politique générale bi il est obligatoire Ousmane Sonko def ko pour le Sénégal nous sommes dans un instant le pays est très très proche d'être basculé économiquement parce que pourquoi le pétrole nous ngi Nous payons réaliser Nous nañ nous budget déjà nous, pour nous, pour pétrole Nous aurons war consommation hydrocarbure hydrocarbure dépasse na li ñuy am ci pétrole présentement. fii li fiy daw ci ay oto ak ay machines yu utiliser carburant yëpp te dañ koy jéggaani pétrole boobu ñuy utiliser pour suñu auto yi ñu fii. ñun moomuñu ko feneen lay jógee ñëw fii léegi yow calculer nga war a jëlaat sa pétrole pour war a jaar. jaay fenn war a dellu siwaat pour war a mën a consommer lii pour mu dellu siwaat déclaration de politique générale dafa war a taxaw au niveau de l' assemblée dañ koy motion de censure duñ ko motion de censure ça dépendrait que ça que de lui parce que moi de son vertu vertu de ci rek nga toog am ay ministère am ministères mhm. nga choisir les ñu bind nga man sama sama budget suis un motif wax say administrer ko ba après yow nga le chef de gouvernement yow assemblée en tant que vertu parce que la déclaration de politique générale il demande d'être un vertueux mhm. nga toi nous affaire bi ngay détaillé ben par ben, di expliquer ben par ben, parce que assemblée nationale parlementaire beaucoup, ça représente le peuple ni dégg nañ ni ñi dégguñu français ni dégg wolof de manière générale nga a am pédagogie beaucoup, vertu beaucoup, transmettre leen ko. ñoom ñu fa andi pour ñu xex ko pour peuple bi jëriñoo ko pré président de la république Diomaye Faye monsieur Diomaye mhm. il ne doit même pas attendre que Ousmane Sonko prend un temps de ne pas aller faire la déclaration de politique générale parce mhm. que. su suñu demee tey ñu ne defuñu ko. Mm. ñu koy puus ba date de bi yàlla. Mm. ñu ne léegi assemblée dañ koy tas fan la ñuy jëlee lu ñu voté seen budget bu ñu demee bu ñu gouverner. te loolu loolu loolu mooy gën a garaaw li fi amoon ca manifestation Adji Sarr xoolal de tenue bi moom du jot salaire am. Mm-hmm. du la fekk ci biir pouvoir bi ci biir ci biir génn la xoolal loolu seetal fii médecin bi fayul hôpital tëju.

lolu mo doon yoon su fekkee ñoom ci règle bi ñuy revenir a règle boobu na leen retourné waat ñu demaat jëlat amnesty bi dugalaat ko ci poche ñoom ñu delluwaat ci kaso bi ah waaw règle ba nga fa de parce que assemblée abbé ah, assemblée assemblée dafa mel ni nga téye sa benn livre coran baxara ba naasi la bu ci benn saar manqué matul kamil léegi nag yow tey bu fekkee ne toog nañ assemblée li ñu bind ci lépp loo xam ne moo jëm ci assemblée muy droits et règles ñu nekk ci ñoom ñu nekk foofu ils n'ont jamais prêté attention ci li nga xam ne moo nekkoon règle ak ak loi kon ay ignorant lañ woon keroog matewuñ li ñu leen wooyee léegi suñu demee ba foofu gisoon ko noppi ko ils ont triché jusque là ils nous montrent qu'ils sont des tricheurs c'est ça la vérité parce que bu ñu xoolee ne tey euh, li li tax assemblée taxaw ay règle ay loi ñoo ko fa teg am na yoo xamante ni baaxul war nañ ko rectifier balaa ñoo entamé lu mën a doon bay doon ay candidat bay taxawal présidentielle kon tey tamit tey bu nekkee dañuy retourné waat nañ jëlaat loi doole ba mu amoon ca A balaa mu yegg si Z ñu jël A ñu jëlee leen fi ñu nekk yóbbuwaat leen ci prison on retourne à te loolu Sénégal kaay ma wax la benn affaire ñoom ñëpp ñu ngi fii Sénégal kenn dàqul la gérer nag kenn gouvernement Sénégal xam nga kan moo ko dàq ki ñemee engagé wu lépp loo wax nga nga assumer ko loolu mooy président ce gouvernement mène échapper à une motion de censure gagné li nga xamante ni peut-être même mooy motion de confiance. gis nga motion de censure bi Ousmane Sonko n'était pas n'était pas prêt pour gouverner ben ñaareel bu mooy Ousmane Sonko dafa yakamti nguur dafa yakamti dugg ci bir nguur gis nga avant avant avant ñuy nommer affaire poste ministériel dama génn alerter ko ne ko Sonko fexel ba bul dugg ci gouvernement bi. parce que xam naa parce que ni may liiree ni may jangé ni may xoolee prêter attention ci yu bëri moom mun na ko fa bañ a parce que moom politiquement am na lu muy doxal am na lu muy dund di ko seet mais dugg ci gouvernement boobu te pare woo moo ko andi lii man mënuma comprendre benn Ousmane Sonko tey nga ne woon impôt nga jógee ñëpp di wax sénégalais ba am fii ay ay ay ay boo yoo xam ne ce sont les influenceurs naan ku génnee impôt nga ne mënta yor nguur léegi kooku non tay tontom am na ko ki mo waxoon ne mën na yor mën ta parce que yow li nga xam ne moom mooy charte ce sont les bonnes traditions du gouvernement du pays Sénégal de sa politique générale tay mu ngi melni déclaration de politique générale da nga jël politique Sénégal yépp politique religieuse ethnique lepp lu fi am international yépp nga nermel ko ci souf xana ñun comme les dañoo wara dem ci ben gouvernement euh, islamique Jean, parce que boo xalaatee a bu ñu toogee li nga politique bi rallier Sénégal en tant que gouvernement en tant que état ak yeneen état du monde Les ñu toog politique bi nga xam ne tey moo ko war a jox ay sookul dëgër ci wàllu santé beeg yëpp ñu jël ko noonu daaneel ci suuf mais politique budgétaire avec gérer affaire de dictature lañ mhm. ça le problème c'est très dangereux c'est pas quelque chose qu'on doit bannir amuñ ci wuñ ci war a foyee ñëpp la engagé le ministère bu de ministère défense ministère de l'Intérieur, euh, de l'Intérieur, ñi nga xam ñom ñoy institution yi ñom ci war sax conseil quel est votre dernier mot parce que ce qui s'est passé réellement du passé ce qui s'est réellement passé du passé ñëpp dégg nañ ko job kéro bi événement yi nar éclaté dox na Sénégal dañ si loolu fait, tax Ousmane Sonko tek ko fi mu donc il a aussi ce rôle aujourd'hui mu na monsieur le ministre te Birame il est courageux je te le dis ah mun na eh faire la déclaration de politique générale su nekkee instant mu wax conseil constitutionnel conseil constitutionnel addu mu dem def ko te loolu sécurité Sénégal tey mooy institution bu taxaw taxaw comme ni ñu taxawoon noonu keroog nommé suñu président démocratiquement Sénégal xam ko xoolu ñaaw na xoolu ñuul na xool nañu li ñu luwaa sant jël président mooy nekk président loolu mooy wax ji. ayca major Kandji nous ñëw rek euh, ba euh, toujours euh, foofu la ñuy descendi un précédent dangereux pour le Sénégal comme niñ ko waxee lan nga jàpp ni tey moom le gouvernement en place ban posture la war am. le gouvernement en place da ngay respecter la le programme de gestion de l'État. pourquoi mu paniquer parce que dañu amul ce qu'on appelle comme les critiques d'art les critiques littéraires. Mm. dafa amul ce qu'on appelle les critiques d'art les critiques littéraires de critique intellectuelle c'est-à-dire il il, il, n'a pas été vigilant et puis une notion de gestion de ko <laughs> il devait tout simplement prendre la déclaration de politique générale de de Amadou Ba ba pare ci l'avènement du pétrole qu'on exploite les les mmh. ce qui a été gâté et ce qu'ils veulent faire nous y ci bi Amadou Ba da koy jël discours bi lay jël astre sous lay def rek da astre sous modifier. vous couper. c'est tellement facile xamul tax facile

non dañ ko xamul non technique lañu dañ koy xam nga la première fois comprendre en présidence en gouvernance à ministère ministère, c'est les archives C'est les archives parce qu'il y' a des acquis et des choses à faire C'est vraiment tellement facile da ngay ñëw du Sénégal dans la gestion par exemple euh, du pays en vue de son développement économique euh, a a eu une politique générale de tous les temps qui est axée sur ces domaines par exemple, là, il y a des problèmes sur la gestion démocratique, la gestion de l'urbanisation du pays, de loger les gens, le fait de trouver du travail, l'insuffisance alimentaire, lutte contre la pauvreté, ainsi de suite, ainsi de suite, les inondations, de, ceci, cela, c'est ça. Donc tout ça a été dit dans l'histoire. Mais Major, à côté Bobo aussi, le métier interpellé, moi, que, nous ñom ni non loolu mooy loolu waxi politicien la moom laay ñëw non loolu c'est c'est la démagogie politique mais celui qui l'écoute mais celui qui croit en c'est tant pour toi hein il voulait un pouvoir ils disent n'importe quoi pour l'avoir non loolu bu ci kenn mat. non politique africain politique ni, mais ça boo ne gars yi lañ c'est problème là. nekkal foofu di leen xaar c'est ton problème c'est-à-dire moom laay wax moom laay technique du mu waroon def moom Amadou Ba la jël discours Amadou Ba j'ai le discours à Ba deux quarts rek lay jël moy la prévision. ñu jël ci ay ak li am. c'est ça ak li nga xamné déficit yàqu fan lañ il recopie ko da koy recopier bu ko recopier da ci am lu li a réalisé il le dit il le fait rappel historique on l'appelle rappel historique. Mm-hmm. effectivement. Nous, le pays, le Sénégal avait un projet de Nangam Nangam qu'ils ont fait, mais ça n'a pas été suffisant parce que les régions ont été occultées. Donc nous prévenons d'eux vous vous nous nous les hôpitaux qui ont été faits et pour tel montant et nous préconisons aller dans les régions telles au vu de l'événement démographique tu parles de Yahweh de véligara parce qu'il y a un algorithme très non mais c'est triste. le projet n'est pas le même. non non projet non Non, non, bi ñuy wax ñoom. ils marchent avec Sénégal émergent. effectivement. ils sont avec. non c'est le projet de Sénégal émergent qui marche. non loolu moo tax mënut dem. Ah, motax ah, non il faut ah, pas inventer. en fait je veux dire que ñom mhm. logique bu ñu nangu xam nga tey. Euh, mhm. Sénégal émergent lañu démé mais au moins waron nañu mëna a jàkkaarloog seen ñooñu ne leen ah ñun kat on continue avec le. peuple on l'améliore moom laa wax mais comme defuñu ko. je trouve boobu très euh, mal xawma ma naka laa. non enseigner euh, quoi que kini médecine madame madame inventé mm-hmm. la science et le dynamique et scientifique mm-hmm. c'est-à-dire la science en elle-même quoi c'est dynamique c'est comme la loi c'est dynamique et scientifique c'est en fonction des des des des des changements mm-hmm. des personnes il y a l'internet qui vient il y a d'autres infractions qui sont liées à l'internet c'est-à-dire moi, bu de mes ba toog archive la fi dafa erreur ñu defal ko état des lieux Sénégal fan lañ toll lan lañ am ministère bu. mais yow opposé woo yaa ngi sa gars yi non non koy jàngal rek <laughs> c'est-à-dire tous tous les xam nga kaay ma wax waaw waaw. non non mais Ousmane Ousmane moo ne moo ne ëpp non Ousmane n'a pas compris comment on fait bi nga demee arsi armature bi lay teg xam nga xam nga euh, écrit musique c'est comme une thèse mooy euh, euh. def thèse ci benn domaine booy def thèse par exemple en droit. Mhm. dañ lay ay ay rubrique. Mhm. mais yow yaay seet bi nga jël du ko rubrique. tout à fait c'est-à-dire Ousmane dafa kii gouvernementale. Mhm. de genre depuis sous-préfet yi ñoo lay defal ay rapport régional. gis nga boo indi rapport bi ñu ñëw ñoo yéeg a yéeg nekk si ci gouverneur yi. ñoo yéeg ministère def seen rapport l'état des lieux la lay defal. ak les projections internes yow nag tu tu tu le tu le compiles en discours. et nag ne la situation est telle et pour éradiquer nangam nangam lire, la ñuy def. mu ah yomb c'est-à-dire moom dafa fa ne il exerce il exécute un euh, un budget qu'il a trouvé sur place avec un programme sur place ci lay basé wax. est amélioré jeex na non gars il gars non non dafa demal boppam. cest à il a il a il a il a il a occulté non un état

le le, la déclaration de politique générale de Amadou Ba noonu harmonisé. Ah, ah. mooy li ma il prend les nouvelles informations. Mm. il fait les projections Avec l'état des lieux. il le met là-bas mu taxaw dem ak ñoom. D'accord. ra dara lañ ko dul def. alors ah, euh, euh, xam nga xam nga war a dem pause. Hein. d'accord gis nga gis nga gis nga non mais c'est la technique c'est ça Amadou Ba c'est une technique. moi quand j'ai quand j'ai demandé des renseignements sur l'affaire du euh, PSE. Uh-huh dañ Macky Sall moo demoon FMI pour réactiver waat projet bi pour gars yi mën oui oui oui. mais au contraire les gens disaient que c'est Amadou Ba qui l'a fait ensuite moo tax mu demone France. ayca te nag programme boobu. c'est ça kaa ma expliqué le programme Amadou Ba boobu. c'est pour 2024 fin 2024. amna partie B. partie B bi ñëwagul. projet mhm. projet major li ko relancer non moom su intelligent woon bañ a jël affaire bi mën a dem document Amadou Ba eh, def ci quelque analyser ba pare xool ministère yi nga xam ne moom. mooy ministère yi nga xam ne mais 11h12 11h12 moo jot nous locaux et un peu partout au Sénégal nous allons marquer une petite pause de régie la page publicitaire delluwaat et plateau bi pour la seconde manche de votre émission l'essentiel du matin